mu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu atum euh, mbokk yi di gërëm euh, ñëpp ñi ci euh, jàppoon ba ñu eggi ko ñaanal leen atub 2022 di atub naataange ak atub wër gi yaram